dégg wax ji doomam toog ne leen papa yaay man kii laa bëgg may leen ma ko barke Seydina Mohamed ba nga jàpp dat ba nga teg sa dot teg say affaire wax say mbokk say nijaay ba nga préparé loolu ana lu ko gën a metti nga toog ba dernier moment nga gis ay vidéo sur les réseaux ku jigéen ki ne musul nekk ak man génn vidéo ko loolu sénégalais gis ko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 Ah, moom ak borom këram audio yi fuité ñii ñu ngi naan moom la ñii naan du moom ñi naan yàgg na ñi naan yàggul waaye du tee rek lépp loo xam ni actualité la koy topp ma dalal nag koo xam ni day sama xarit nag di sama frère xam ni moom <laughs> daw na ma côté bu ne nag pendant trois ans ma koy topp ma booy dañu xaw a doy waar mais tey moom damaa riposte risqué mu nekk suma gaañee nag nekk suma xarit dan doon koo xam ni wax dëgg yàlla bay na waaram ci aar bi euh, yaakaar naa tey li ñu war a waxtaan bari na frère maa ngi lay nuyu. maa maa ngi lay ziare xam xama di kontaan ci ci ci ci dalal bi tonte yàgg nañ bëgg gisante. Mm-hmm. yàgg nañ bëgg def émission. mais tey la ko yàlla dogal. <laughs> Ah d' accord Dan pourquoi lëlu bi. bon lëlu bi mooy comme li ma lay wax rek nekk ci liggéey bi xama topp suñu yoon quoi. seeg ko seegaat ko ñun yaa xam suñu dara. Mhm. ñu ngi ci yoon bi xam nañ ni ñu yor en fait. Mhm. Ah, pourquoi tan des fois doo koy gis yu bari par rapport ak yenn artistes yi nga xam ne foo tourné événement télé bu ne chaîne bu ne nga gis leen fa par rapport ak yow da nga da nga mel ni ko réservé wu en fait. bon c'est pas ça genre nit ñi ngi yaakaar dama réservé wu wala dama timide wala non du loolu de dafa am lu may segg dafa am lu may liggéey dafa am lu may wër sama yoon guy parce que man wutuma bës. carrière lay wut ci loolu laa nekk tey ji bëgg naa fi nekk benn gis nga lu def quoi li seq ou plus yaa ngi comprendre donc man sama bët foofu la nekk quoi moo tax yàqamtiwuma dara te maa ngi liggéey. Mm-hmm. d' accord yàkkamtiwoo dara yaa ngi liggéey mais des fois du ñàkk artiste mën nga jékki-jékki génn. mais dañuy gis daan. Uh-huh. daal bu dul studio wala nga fekk ko ci liggéeyam doo ko gis ci yenn détails yi. ah si man mën naa ne loolooy valeur artiste bi en fait. Mm-hmm. mais pas artiste bi fu ñu gis la fu ñu tourné tamit gis la ci ay affaire man new ma ci loolu quoi franchement man moom lu dul sama liggéey fonk ma ko te bu génn jotee rek incha allah bi li ma war a def ko def. pourquoi dan des fois du jékki-jékki nga gis ko ci yenn soirée euh, yenn yenn yenn artistes yi comme ni ñu koy defee. di demalante. lan la da nga am ak bon je le fais ah gars yi ñu ngi gis samay euh, yenn vidéo yi mais je le fais pas beaucoup tey jii mën naa toog sentir dem benn soirée. whatever Ibro benn soirée Wally on a chanté ensemble mais tey jii du du nekk loo xamante ne je le tout le temps pour sàmm sama image en fait ko def nag parce que ñu ñëpp benn lañ parce que bëgg nga tamit yow tamit boo xewle ñi ñi fekk si la donc loolu man maa ngi koy def maa ngi am samay samay samay nit yoo xamante ne ñu ngi ciy demalante ci loolu. pourquoi loolu choix la boo xam ne yaa ko opté wala encadrement la wala staff la. bon lu ma def sama bopp la. en première avant staff bi mooy loolu lu ma def sama bopp la. d' accord euh, lan nga jàpp ni mooy différence su artiste ak ki nga xam ne dafa jóg pour buzz parce que des fois nga gis ay yoo xam ne ñoom événement rek la ñu leen tudd wala buzz par rapport ak artiste bi nga xam ne dañ koy créer former ko pour kii mu nekk benn Youssou Ndour wala nekk nekk quelqu'un dans ce pays ci côté way bon artiste bu jóg pour buzz man je peux dire que lu ko tax a jóg du du du carrière am artiste boo xam ne dañ koy toppatoo nag tey jii wala bi si boppam am lu mu bëggal boppam ñun tey jii ñaan nañ yàlla exporter musique bi tey jii comme Mia Guissé ni mu koy defee man maanaam man je le dis ah man dama naan Sénégal gisuma fi kenn koo xamante ni mën na exporter musique Sénégal ku dul Mia Guissé. lu tax nii nii ñi may wax ak yow jamono jii ñu toll moo nekk ci côté boobu te fi ko jàpp nag foofu la te man nag foofu laa gis. suñu suñu musicien sénégalais yu bari côté boobu laa leen di gis Mia fi mu teg tànkam baax na lool lool lool te yaakaar am nañ ci yaakaar quoi. lan nga lan nga tax lu mu imposé sénégalais yi la. Hmm. parce que aussi tamit bari na ci xaaxam yoo xam ne tay jii boo ko woon du dem mais dañuy gis à chaque fois. Hmm. lu mu génnee day doon loo xam ne nii lu am ampleur lay doon. waaw xam nga tey jii artiste tamit wax mënul ñàkk ci moom yow yaa opté ñoo yow nekk artiste donc euh, te am ñuy bëgg am ñuy bañ euh, yow di nga am yoo xam ne di nga ko def ñi naan non de suñu réalité de suñu lii parati mais soo bëggul déglu bul déglu c' la musique tey jii ki la ki lay wax loolu mooy dem di déglu musique américain yi wala muy seetaan leneen leneen loo xam te ne bokkul ak moom te du koy bëgg. Mhm. léegi pourquoi pas ñun loolu mbubb bu muy sol la rek artiste la donc euh, man je vois pas de problème là-dessus. waaw mhm. ah d' accord des fois ñu gis dan fan yee doon nga jël ay événement five. fan yi gisatuñ ko lan la. bon du dara naka ah, parce que parfois da ngay toll foo xamante ni da ngay tester sa doole yaa ngi comprendre. Mhm. xool say affaire yaa ngi comprendre. en plus euh, fa laa njëkk tëgg man sama première soirée 2024 laa commencé def soirée 2024 bii nii. bii nii te nit ñi yàgg nañ ma wax doo tëgg doo tëgg doo mais dama ndës xam ni bu jotee yomb parce que tey jii mënoo dem tëgg te amoo répertoire c'est impossible. Mhm. mais def naa ko COP 21 def naa ko blacklist blacklist laa njëkk a defee sama première after work. Hmm. et ça a ñu fay ma ma ñëw joué mu nekk sama première sama première live boo xam te ne def naa ko. Hmm. ma kontaan ci trop. deuxième bi ma dem COP 21 j'ai testé ma gis ni sama yëf la yaa ngi ma xam hmm. ni maanaam am na lu bëri loo xamante ni war naa ko wan Sénégalais en te mi ci man troisième fois bi ñu def five. mais temps boobu noonu mu ngi bëri woon ay manifestation et tout ça njëkk jàppoon date avancé waat ko xam nga temps yooyu dëkk bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi am benn genre mm-hmm. ampleur mais tamit jàll nañ ko si jàmm five bi neexoon na ko fa ñëwoon dégg nga ay way <laughs> ku ñëwoon mm-hmm. gi dégg nga ay way mm-hmm. dégg nga musique dégg nga maturité donc loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne daf ñuy préparer parce que tey ci compte bu nekk day day commencé ci benn waaw li ko di ko li ko olof jaay di waxee tepp tepp gën yu ret hmm. ñun foofu lañ ne ci benn la ñuy commencé ba ba fukk. Hmm. wala mil. Hmm. ñun foofu lañ ne quoi. d'accord dan ci ay woyam quoi dan moom choix am daal mooy mbëggeel. woyal jigéen ñi mbëggeel lan la pourquoi des fois. waaw bari dañuy xaar dan ci tolluwaay réew mi. mais wax mbëggeel rek ngay woy booy. man avant tout man lover la déjà. loolu dañ ma koy laaj man leen man je chante de l'amour loolu leer na mën nañ xaar nag ci yeneen mais loolu après lay doon mais man ñi bëggante laay wayal en fait. mais bu tax loolu. bon voilà. est que nekkul. loolu dund da nga dund trahison ci mbëggeel moo tax nga jël loolu wala nu mu demee noonu. <laughs> rey da ci <laughs> <laughs> da nga dund trahison ci du ma ci sori. Uh-huh. mais mu amoon relation boo xam ne doxoon na sa diggante ak ki nga xam ne moo di Dieyla. Mhm. ba yàlla def li gën. Euh, mhm. ndax relation boobu tey cadre amitié wala cadre nit ak nit. Mhm. yéen a ngi tekkante wala yéen a ngi sàmm. kóllëre googu en fait ba tey. bon dëgg la li nga wax dëgg la mais bon amuñ amuma problème ak kenn man sama kol dafa rafet du ma jàppal kenn dara parce que dama bëgg avancer nit ko bëgg avancer doo dencal nit dara bon mën naa ne déggantewu ma kenn maa ngi sama coin gérer sama affaire quoi waaye. gis ni bi problème boobu amee ba tey da nga da mel ni ko stand ñu gis beneen daan boo xam ne affaire dafa mel ko choqué nag quoi ndeysaan. dëgg la mais xam nga te jii tamit bon sa àdduna dara bu la arrivé da euh, xool quoi comprendre nga faut pas wala genre wala tu sors man je tey jii damay gis damay damay bëgg maanaam nit gis ma ci beneen ci beneen affaire ci beneen level man loolu mooy sama ndam affaire. man ma gis sama réew ma gis sama sama sama réussite loolu mooy sama ndam te ci loolu laa nekk. mais ku ne xam na la cœur a ses raisons. woykat bi woy na ko. tey nga dund ak nit ko xam ko. Mhm. à ton surprise nga xëy mu jékki-jékki kite la. Euh, mentalement loolu noonu du xaw a gée donte góor nga mais tamit. mbëggeel mhm. des fois mu jàpp la ci ruq boo xam ne booy. mais te dugg du jooy ah ñun ñëpp lay dal. guug yaa ngi dugg ci code <laughs> ñun ñëpp lay dal man mii que xam nga yàlla moom. kenn def lu baax mu lay fay lu bon. dëgg comme si que tamit boo defee lu bon da lay fay lu bon aussi. Mhm. yaa comprendre yàlla dafa juste te man sama yaay daf maa ñaanal sama yaay daf ma ñaanal. Mhm. ku ko def lu bon da koy gis moo tax tey jii laissons le laissons le temps parler en waaw tey gis naa tey gis naa say sati nga xëy loolu la ala ah, nga xëy loolu ah. la <laughs> non je wax ma ko ngir dara mais bon. li Wolof Njaay naan yàgg bawul dara nañ seetaan gars yi dañuy gis parce que xam nga rek du ma jëm gi sori. Mhm. une petite parenthèse dañuy waxtaan quoi du ci yàgg nag je vais en tey jii maanaam supposons buy nga war a taq jabar en mhm. ñu dem ba dernière semaine mariage. maa ngi yëkkati bi. tax bi nga dem ba dernière semaine mariage tax bi deux jours avant tax bi supposons jeudi vendredi samedi dimanche ka war a tax jabar nga dem seeti euh, papa ak yaayu xale bu jigéen bi ngeen waxtaan mu nelaw boo ñëwoon suba suba may la sama doom si ngay dégg wax ji doomam toog ne leen papa yaay man kii laa bëgg may leen ma ko barke Seydina Mohamed. Oh. ay nit la dañuy waxtaan amul artiste amul comprendre dañuy waxtaan en fait dëgg la en tant que nit ñu ne la soo ñëwoon suba suba ñu may raw kii ne leen man kii laa bëgg papa may leen mhm. ba nga jàpp dat ba nga teg sa dot teg say affaire wax ko say mbokk say nijaay ba nga préparé loolu ana lu ko gën a metti nga toog ba dernier moment nga gis ay vidéo sur les réseaux kon noonu la demee non déglu ba rek déglu ba rek du ma sori nag guy guy ma maa la ci dugal maa la ci <laughs> nga gis ay vidéo sur les ñu ci wax quoi déjà les parents mais xamuñu ko góor gi ah. ku jigéen ki ne musul nekk ak man kenn vidéo ko loolu sénégalais gis ko mais maanaam comme lii ma la wax rek am na foo foo xam ne soo fa tollee sa ñaanu yaay moo lay dimbali man sama yaay rek ma liggéeyal barke Sëriñ Tuubaa war tey jii àdduna loo warul loo foo warul jaar rek dafa gënul ci yow mm-hmm. à chaque fois yàlla da lay dencal di gën moo tax man du ma attardé wu ci dara te tamit yéenewu ma kenn lu bon. Mhm. maa sama yoon maa ngi liggéey nekk samay business waaw. franchement en tant que personne de Dieyla bi nga xam. man euh, maay dugg maay tudd tur nag. Euh, mhm. ndax jàpp nga ni loolu noonu. Mhm. lu naturel la même pas 24 heures affaire yi changé jàppoo ni loo jàpp nga ni loolu lu naturel la. kuy <laughs> je vais pas en parler waaw. jaara benn question <laughs> léegi. dimbali ma rek may ma loolu. guy gi jàpp ci rek. <laughs> may ma loolu. mais après waaw noonu léegi maanaam. waaw maanaam après ndax toog nga jàpp ni. Ah. lii nii lu naturel la foofu lay jeexale non loolu ah, moo peut-être tamit loolu yàlla dogal man loolu aw ma dara lu ma ji si wala góor yàlla la mel naa li ma war a mel gentleman la. yaa ngi comprendre donc dara umbu ma rek yaa ngi mhm. dara umbu ma lu ne mën nañ ko am mi ngi noonu. d' accord fan yi ñu gis ay audio yu fuité. Mm-hmm. Euh, ñu bari ni Dieyla la ñii ni du laa ñii naan yàgg na ñii naan yàggul. Mm-hmm. Euh, moo borom këram. Mm-hmm. xamuñu nag à 100 pour cent que moom la wala du moom. tey audio yi bi nga ko dégloo du ñàkk déglu nga ko ndax yaa ngi réseaux sociaux yi. moo tax guy gi li ma lay wax rek yàgg baawul dara àdduna moom saa yi da ngay rek man je vais pas en parler parce que c'est leur vie déjà lu ma ci wax rek tooñ yow seetaanal rek des na. <laughs> des na <laughs> seetaanal. kon da nga jàpp ni ku wàcc sa ànd ànd borom fekk fa borom. fekk fa borom toog mi ngi lépp. Mm-hmm. voilà mi ngi noonu. d'accord ah. d' am na solo ma ñëwaat ci carrière bi tuuti xam naa dama ko peese na nga gis nga. sérieux <laughs> yow wóor moo tax tey. Eh. daan ak euh, label. yi maison production yi lan mooy seen problème parce que ñu bari ñu ngi naan daan talent bi ne ci moom ak mën a way gi maison de production yi ñoo ko téye ñoo ko bloqué lan la. waaw man dan kenn bloqué wu ko kenn téye ko mais Sénégal dafa am benn réalité bu fi ne Sénégal dafa am benn réalité bu fi ne mooy réalité boo xamante ni di liggéeyal nit ki te doo ko te doo ko teg fu leer. dëgg nekk xale nag du la te am jom quoi. te nit nag boo xamee loo yor ay xam noo koy sàmmee man bañu ma nag ku koo xamante ni dafay ñëw di liggéey ak man quoi. Mhm. mais teg ko ci yoon man sama carrière yaa xam ma ci dara lu war a ñëw day ñëw au moment qu'il faut. Mhm. yaay comprendre ñun lu ñu mën ñi ngi koy mën li ñuy def ñi ngi koy def te li gën a am importance ci nit mooy li ngay def mën ko guy gi. Mhm. guy gi li ngay def mën ko nga sëgg ci. yàlla dala ciy fekk si. man foofu laa toll. mais tey jii beaucoup personne personnes ngi may ñi ngi may ñi ngi may contacter pour liggéey mais dañoo tegul seen liggéey ci yoon surtout les producteurs sénégalais ils sont pas du tout sérieux yaa ngi comprendre mais ñun ñu ngi suñu yoon di liggéey. ku ñu fekk suñu yoon tamit ñu ànd ak yow liggéey. Mhm. mais nañ ko teg ci yoon rek man mhm. awma benn problème ak kenn. mais mais bi nga am aussi. sànq ñu ngi ciy waxtaan patience bi nga am man jaaxal na ma. Mhm. parce que des fois nga gis nit toog di def loo xam ne nii yow yaa ko dàq fuuf. Mhm. yaa ko mën ci talent lépp. Mhm. mais nga gis ni muy cartonné. par rapport ak yow mi nga xam ne da dem jàngi mën formation bi. def mbapat jaar fu ne am trophée bu ne. alors boo toogee di gis loolu patience bi ngay am. waaw mooy li ma lay wax rek <laughs> mooy li ma lay wax rek gis nga sa heure moom bu jotul saa yi lu jot rek yomb sa heure bu jotee moom ala kuliyal fu mu la fekk safraa fera le hmm. feu ah, yàlla moo koy tuddee noonu à chaque fois nit nekk na ci mbir vingt ans de si soo ko gis dara parce que yoonam la moo tax hmm. ku nekk ak sa yoon nit ñi bokkuñu mais nag ñi ngi ràmpe nag te am nañ ci yaakaar bu soobee yàlla waaw hmm. ah. pare nga pour liggéey ak yenn maison de parce que looloo ñu fi teg loolu mooy suñu liggéey. Mhm. voilà. d' accord maa damay posaat carrière bi am fu ma dugaat. <laughs> le cas de ndaxte. Euh, tey boo ñu doon wax kan mooy ndaxte mi nga xam depuis que seen petit gàllé ba tey boo ñu doon wax ban nit la. waaw uh-huh. ndaxte xamante dañ depuis 2015 mi ngi may big ci émission bi d' maa ngi lay nuyu. grande sœur man xam naa ne ma mag balaa ma naan la yaa ma mag nga génn naan maguma la <laughs> ku baax la ku xoolam rafet la mi ngi koy wax ci émission bi elle est joviale nekk day bëgg ñëpp di ree ñëpp di kaf wan naa fi tam benn xarit boo xamante ni dañ daan gise souvent mi ngi tudd Dada moom xam na ko. Mhm. Dada su daan ñëw fii eh, wax ndaxte rek lay sama xarit bi dafa baax peut-être ñoom ñaar ñoo bokkoon classe déjà ku baax la. ku yaru la maa ngi lay big up grande sœur. <laughs> d' accord d' accord jàngatee li nga xamante ni mooy interview bi mu def. wax li nga xam ne doon na ko dund ci néegu sëyam. ba di fierté moom rek parce que euh, nit moom ku nekk ci couple wala ku nekk ci sëy mooy euh, am ay problème ay problème moom saa yi fépp la am quoi mais peut-être ça ça dépend ci degré de muñ bu nit ki di mën a muñ. yaa ngi comprendre peut-être dem na ba mënatul muñ mu génn xam nga nit ku nekk tamit ak sa aal fu mu yem quoi mais aw ma dara loo xamante ni maa ngi koy reproché moom décision am la moo ko jël c'est sa vie en fait. di ko ñaanal jàmm rek. waaw mm-hmm. ah, d'accord ñu bari ni sorte boobu ndax waroon na. Mm-hmm. Euh, warul woon a toog gérer. Mm-hmm. dund ko maa bañ a génn di wax. parce que jaroon na muy génn di def ay révélation bon man si c'était moi du ma génn. mais petite peut-être bon yaa a beaucoup de choses xam nga Sénégal mënoo comprendre mais man su nekkoon sama koo xamante ne moom laa dëkkal lu génn mukk waaw parce que ñu bëri ñu ngi naan sëy ah. tey wax na ci loo xamante ne nii kenn ah. xamul ko woon te mm-hmm. entre moom la ak ki nga xam ne mooy borom këram aussi mm-hmm. Mm-hmm. ah mi ngi noonu ñoom ñaar bi ñuy bëggante kenn fekkee fekkeewul donc euh, lu mënoon am munoon nañ ko gérer ñoom kese mais tamit bon comme ni ma la ko waxee rek choix am la choix la waaw am la dem na ba ci kàddu yi ba mu lan mu la ci gën a xaw a bon man bi mu naan affaire matraque tout ça. waaw mais bon xam nga tamit boo dégluwul ñaari version. waaw munoo xam. doo mun a ah, te kaam wax la benn affaire guy gi. jigéen dafa doy waar. Mhm. loolu moom man maa la <laughs> jigéen. Hmm. maanaam jigéen bu bëgg bu bëgg dem ak ndongo lu bëgg ñibbi. Mhm. ñoo yam Mhm. xam nga ndongo lu bëgg ñibbi nu muy mel. waaw wala xamoo ko. déedéet mosuma koo dund ndongo daara. Mhm. man nekkoon naa daara. Mhm. xam naa li ci bëgg ñibbi seen kër. <laughs> lu mu la jaral ci àdduna di nga ko def. ñu ne la moom ak jigéen ju bëgg yeewu boppam wala jigéen ju bëgg firi ñoo yem quoi. donc euh, lu yàlla xam doy na quoi. Mhm. franchement. d' accord ñu bari ni woon euh, est ce que nekkul daf ko doon def pour créer buzz par rapport ak euh, son bi nga xam ne génn na démb artiste bu demee ba toll foo xam ne nii tey. Mhm. muy théâtre kat bi wala muy woykat bi. Mhm. day créer coow. pour mën a am ampleur ci li muy def naka yaakaar ne musique toll na foofu aussi. bah ça moom je connais pas beaucoup quoi parce que bon je sais pas beaucoup man loolu mënu ma ci wax quoi parce que je sais pas peut-être man je sais pas xam nga mm-hmm. Sénégal moom dafa doy waar. Mm-hmm. peut-être peut-être. waaye ah d'accord nga ci góor guy doo jigéen. <laughs> non loolu kenn d'accord ci <laughs> loolu du laaj. <laughs> ah loolu du laaj parce que ah boo ko laajoon dof sax mu ne la kenn doo jigéen. waaye mm-hmm. mosoo ko def. non mosuma ko def franchement. Ah, soo dóor jigéen. non jamais jamais jamais man jigéen tamit dama dama dóor faale mu ko sax. Mm. Ah, kan la yow xam nga di xajoo ci boobu. Hmm, kan wala doon doon noonu. <laughs> yow bul lijjanti loolu bul cal bul bul calculer. <laughs> kan wala doon doon rek. d'accord euh, mais naka nga gisee mariage yu léegi parce que dañuy gis ni bu njëkkoon ma sëy dafa am loo xam ne moom la ñuy wax base culturelle. Mm-hmm. te da nga daan gis euh, xale yi bu ñu daan sëy ay mag ñu leen doon topp. buñ jaaxlee dem waxtaan ak seen i bàjjan mais mm-hmm. léegi ñu bari ni jamono tey bi aussi xaw na yàq sëy yi parce que mm-hmm. gis que añ sax boo koy togg ñu bari tey dañuy dem ci google bi pour jëm ko fa rechercher ah euh, tey sëyu léegi noo ko gisee. bon sëyu léegi man je peux dire que xam nga nit moom ku mu bëgg rek bàyyi ko mu sëy moom. Mm-hmm. parce que loolooy li gën ci moom mais dafa am lu jiitu dafa am réalité fii Sénégal. Mm-hmm. ñoom ay lal lañ ku baax lañ bokk yor nañ xaalis. Mm-hmm. yor nañ lii c'est que am-am dafa nekk loo xam ne ñu bëri dañ koy jiital. te du loolu. maanaam nit boo gisee ci moom jom gis ci moom fulla gis ci moom responsable. Mhm. gis ci moom lislaame gis gis ci moom ku engage mën a tee nit mais kooku ala kuli aal da koy jàppale ci la fam mhm. ko mu nekk ak ki mu mhm. tey jii supposons yow yaa ngi xool koo xamante ni exemple benn nit boo xamante ni xamoo fu muy jëlee xaalisam. xamoo xamoo day pari foot di ko jàpp xamoo. mu ñëw di la jox ay non mais loolu mooy tax sëy léegi. surtout guy gi waaw yaa ngi wax lu am solo nag. guy mhm. da ngay ñëw da ngay ñëw in da ngay ñëw seet si xale bu jigéen bi. gis yaayam may ko 500000. waaw wàcceel ko télé gàllem. Mhm. ñu ne waajaa ngi. ñeemu la yow la de. ñu commencé bàyyi ki mu nekk loolu. Mhm, nga commencé ñu commencé la ñaaxal fayda sax. te amaana sax jom bi na ci yow barke Serigne Touba li nga leen mën a apporter yàlla xam na ni moo tax. yàlla ñu yàlla defal jàmm <laughs> réew mi dafa doy waar moo tax tamit di di sàng sa bopp sutura tamit di di di di di laaxatu. waaw nit dangay ngay mm-hmm. di def li ngay def bul wax kenn say projet nekkal ci li nga war a nekk. Mm-hmm. nit ku la ci jàpp mu jàppale ci ndax nga xam ñi la bëgg quoi. Mm-hmm. ndax jamono ji kenn xàmmeetul ku bëgg kenn. ndax xaalis. yaa ngi comprendre. voilà mi ngi noonu en tout cas daal sëy daal léegi daal mi ngi noonu. dañ bàyyi xale yi ñu ñu bëgg ñu may leen ñu sëy xale yi tamit boo leen dugg dugg leen ci koo xamante ne toog na fu leer bokk na fu baax. Mhm. c' important. d' accord man moom xam naa ne ko may tax du doon célébrité man loolu leer na. lu tax dama ko xam. <laughs> loolu do loolu du baax ci yow sax boo tax da ngay tax koo xamante ne xamul réseau. Hmm. c' est très important. waaw hmm. ah jamais ça dépend rek. peut-être peut-être mën yàlla mën na ko tudd sama sama tudd sama live mais man li ma gënal a tax célébrité moo ma gënal. parce que sa vie yëpp day exposé wu ci mbedd bi. day exposé wu ci man su ma taxoon jabar sa comme ni ko gars yi di demee laa koy demee rek. sa ngénte kenn gis sa xew kenn gis sa tax sa maanaam kenn du ko filmé. c'est important. Youssou Ndour ko ko gën a siiw amul. mais maanaam seen affaire du génn. Mhm. avant stress boobu. bon ce sont des ce sont des personnes tey jii xamante ni am na lu ñu bëggal seen seen seen seen famille quoi am na lu mm. ñu bëggal seen. seen vie quoi waaw mais mi ngi noonu. Mm-hmm. c'est intéressant mais la moo tax mënuñu def loolu. Mm-hmm. ah mi ngi noonu loolu rek indi problème yi ah. ngi jàkkaarloog sa sœur ndaxte loo koy wax. sama bon <laughs> ah, ah te nga xam ne tamit euh, yàlla ñëpp la fi nekkal. Mm-hmm. waaw xaw ma nag lu ngeen jotee wala problème bi na la tëddee mais gëmal li nga doon nga focus ci sa musique bu la kenn tareel nag liggéeyal focus ci sa musique focus ci sa ci say waayjur. Mm-hmm. xool noo avancé. Mm-hmm. c'est important surtout ngay liggéey nag parce que ndaw nga gis nga ku la waxul liggéeyal dalay nax. Mm-hmm. parce que liggéeyal la mën a may maanaam mën nga ànd ak ñu lay may doole sax. mais barki alxuraani karim bés dina jot sa liggéey gisee lay wallu. loolu mën maa la ko wax. Mm-hmm. soo gisee nag ñi fi am dara yëpp ñi fi am dara yëpp. Mm-hmm. ils ont bossé dur. Mm-hmm. dañoo ñàkk li ñu am parce que Serigne Touba parce que gis nañ obstacle bu ne. nekkoon nañ ci ay nit nit yooyu jég saay bàyyi leen ñoo demal seen bopp ba tey yàlla def leen fi ay monument wala leneen ak leneen gëmal sa bopp nga liggéey. loolu kese laa d' accord lan la ñu mën a xaar ci mille 2024 bi. Ah. say projet bon. beaucoup de choses déjà maa ngi waaj a def benn sorti mhm. maa ngi waaj a def benn sortie gaa yi dinañ ci jot. Mhm. te son bu gaa yi bëgg la. waaw mooy mooy tamit. ah booy bëggeel lay <laughs> yi bëgg la parce que dugaloon naa extrait bi. Mhm. te j'ai eu pas mal de retours yoo xamante ni jóge na ci sénégalais yi. mais gars yi mais xaar ko dina génn léegi. mais gars kañ lay woy trahison. trahison moom laa njëkk a mais instant yi trahison. yow. maak lu ñu daj teewul nga dem ba ma ginnaaw maak yow lu ñu dekku coono teewul nga ba ma sama gént nax saay na li ma gëmoon sey na li ma dund ci ay nax ku ma ko nettali nga jooy ay jaral jaral loon nga ma lu loo ñu génne xale yi jooy. mais mais boobu boobu boobu mënu ko indiwaat di waaye mënuñ ko biisaat nii ah. mën naa ko waaye mënoo ko biisaat nii nii xam loo ci xaw naa mais booy loolu garaaw na de. mais mën naa leen ko mooy acoustique loolu day bari. waaw mais loolu noonu loolu noonu mais loolu mais loolu mais a a ma lay jaajëfal bu baax a baax. Ah man dama lay bàyyi nga tàgg tàggatoo ma lay jaajëfal nag sama frère nga. parce que bëri na ci loo xam ne dañ koy partagé ba nag yow Kémellaaru tàkk micro tàkk. mu nekk entre nit ak nit nga nekk ku baax nekk ku ma aussi. donc maa ngi lay ñaanal ci carrière bi nga bëgg. ak fi nga bëgg a yegg ci musique mm. yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal vraiment booy bu sérieux nga du ma la gis ci ay détails du ma la gis ci yu bari. Mm-hmm. sa liggéey jàpp sa ñaamur nekk sa coin. en tout cas may am mbégte bu baax a baax ci jàkkaarloog yow. sa mot de la fin ci émission bi. amiin di kontaan ci yéen trop di leen ñaanal tamit yéen tamit yàlla dafa leen jàmm. xam nga lépp loo leen séntu ci seen liggéey yàlla may leen ko. xam nga yàlla may leen ay millions may leen kër may leen oto may leen jabar ju baax xam nga may leen tamit ngeen di saame. waaw di sant nag suma yaay ku soro ci man la ku bëggul ma jaaxle la ku bëggul ma mer la. Mhm. waaw moom nag su su su su ma amee jom rek moom la. parce que loolu mën moo koy def ci man. waaye mhm. di gërëm sama papa moom it sonn ci ñun xam nga. Mhm. bëggul ma jooy dara. Mhm. donc euh, di ñaanal waa Sénégal. yàlla na jàmm yàgg. kontaan naa. waaw moom it Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf.